bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina moolana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa saxbihi wa xadimihi wa radwaani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokki taalibe murid yi bokki jullit yëpp bokk yi bokki dëkkandoo yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq di leen jottali ay kàddu yu jóge ci a Cheikh Ahmadou Mbacké mi fi nekkal Sëriñ bu doon jëwriñam ngir mu leeral leen lu aju ci màggalu Sëriñ Chouaïbou gi ñu baaxoo def at mu ne ndigal li nga xam ne jëlee na ko ci kilifaam di sëriñam ak cheikh Mouhamadul Muntaqa mu fi nekkal Cheikhul Khadim mu jox ma ndigal nee naa jottali ay kàddu yoo xam ne ci turu boppam ak turu ay rakkam ak njabootu kër gépp ak mboolem lu aju ci kër Sëriñ Suhaybu bu ci seex yeeg taalibe yëpp ak fu ñu mën a ne di leen wax ne màggalu Sëriñ Suhaybu bu ren danañu ko def waaye ci ndigalu Serigne Mouhamadul Mountakha nañu ko defee ne màggal yii nu weesu mu muy màggalu Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne dañu ko def ci kër yi defen wu sell jàng alquran ak xasida bernde siyaarante ci sun biir te bañ koo woote kenn ku ne di jóge ci ab dëkk wala ci raison di ñëw ci dëkk bi ngir màggal gi kon ndigal li mooy defe ko ni màggal yi weesu ngir xatuk jamono ak bàyyi xel dogal ngant mbooloo mi xam ne am nañ yéene waaye am na loo xam ne jamono laaju ko kon ñu ngi ñaan ñëpp màggalal sëñ Sohaybu bu bisam boobu yi mu gën a adduna waaye ci anamuk kenn ku ne defe ko këram jàng alquran jox ko ko addiya jàng xasaay di Seexul Xadim jox ko addiya def salaatu ala nabi jox ko ko addiya waaye bernde jox ko ko addiya kon woyefal nañ yolomalal nañ jàpp ndalal nañ mboolem ko waroon a ñëw te niwut ci biir dëkk bi nga toog ca sa kër defe ko fa ñi ci biir dëkk bi ku koy def ku ne soxlawut defi baas soxlawut woo mbooloo kenn ku ne ci sa biir kër yow ci sa bopp boo mënee jàngub kaamil nga def ko yaag sa njaboot bu ngeen mënee ànd toog ci biir kër ga def ko waaye lenn luy nuru xumbute ak woote mbooloo dogal nañ ngànt ñu bàyyi ko ba beneen ba jamono laaj ko waaye nag la am njariñ ca moom loola moom jéggali wuñ ko ñu ngi ñaan ñëpp soññ si ñëpp ñu jublu si mu jàngal xuraan ju doy xasayidi sëñ Tuubaa ju doy bernde sa kem kattan te jox ko ko addi mu fekk fom ne di ci fasaale nag ci addi jooji yàlla def jàmm ci réew mi te jëlee fi mbas mi te def jàmm ak xéwal ju bëree bëri ci réew mi te yàggal fi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak i rakkam ba mboolem li mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa mu def ko ni mu ko bëggee yàggal fi sëñ Cheikh mii nga xam ne mooy jëwriñ sëriñ Souhaïbou te yërëm nit ñi ak wéye ndigal tax mu woyofal màggal gi nii kon ñoo ngi ñaan ñu fekke ko ay ati at te bu déwénee mu bañ a demee nii ñu defe ko nañ ko daa defee jamono soppiku yàlla yekk ne mbas mi jëlee ko fi jëlee ko ci réewu jullit yëpp dafa na jàmmi adduna ak jàmmi àllaaxira jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah thank you